dia de dia dia de fuder, sama guy. Sama guy, Mr. le depuis les États-Unis d'Amérique. Côte West lay doon sama guy maa ngi Côte Ouest. ngeen ma Mr. la wala sama gars yi xaar gars yi dugg ndank ndank ñu wax ci situation Sénégal parce que tey dañuy yow dégg que ni um, Macky Sall mi ngi jema xoxatal nit ñi ba légui El Malik dañ ko convoquer Ibra Fall tay mom vraiment dama bëgg ñu tok waxtaan ak yeen waaw tay mom dama bëgg ñu wax parce que xam Macky Sall dafa melni jéxal na gars ku dugg nak da ngay jëkk sa reflex ce premier reflex moy nga nga nga nga nga like parce que keur Massar dañu yaakaar ne day waji tak keur Massar day waji tak ndax maire bi maire Diatta jajeuf lokay jaay maire Diatta dafa mm, déterminer mom néna surtout allume cité Diatta la mom du nang ko dañuy ragal ñu ray ko maire le maire waxleen ma turam dëgg-dëgg maireu euh, euh, Kër Massar bi turam en tout cas xam naa ne jaata la sant moom nag nee na sëtu euh, jaajëf Artimelo waaw jaajëf Kër Massar dafa mel ne révolution bi foofu la ndara commencé ndax jaata kooku du du ragal fital la yor waaw fital la yor te moom nee na wuyu jiwul wuy jiwul te ku ko jël si dina la dóor bal man loolu laa jàpp Bilal jaata nu mu tudd Bilal Diatta Mohamed bilaal Bilal jaata waaw kay Bilal Diatta guerrier la guerrier la moom fital la yoon moom fital la yor Sonko mi ngi wax ja euh, mi ngi wax euh, jaajëf tafsila jëppee <laughs> Sonko mi ngi wax ne euh, ku nekk na nga ut sa jumtukaay bilaal Diatta nag moom. dafa yor jumtukaay jumtukaay bu mu yor mooy fital dafa njëkk génn mu ne képp ku dugg kër mas képp ku wax ne day taal këram moom amul Marème Faye Sall amul ku mu mënti doon di dóor bal bal la lay dóor kon moom dafa mel dafa menacé ne bu fekkee ne Macky Marème Faye Sall moo wax ne dem leen kër taal taal kër Bilal Diatta moom dalay lay dóor bal loolu la wax mu ne nit ñi nañu résister waaw Bilal Diatta nit ñi résister leen mu ne moom affaire Sonko bi fekk ko fi waa gars yi ko dugg nag da ngay njëkk am réflexe nga laaj parce que Sénégal luy jot dafa jot man boo leen gisee may def live chaque jour billahi wallahi taalahi amatuma jàmm Macky Sall daf ñu war a abal suñu réew su ma déggee ay nit toog di wax waxu troisième mandat sax man ay appui yëf yi ay réel ma def ana artimelo waxal ma sama waa ji euh, euh, euh, nu mu tuddati kay foofu que ñu wax bàyyi ñu bàyyi wax affaire troisième mandat kay soof dafay ah na dem dafa ne woon du dem waruloon dem fan la man di ma liir dafa ne demul de dafa ne demul dafa demul Bilal Diatta dafa demul waaw waaw loolu la waroon def dafa waroon toog gars ñëw bu ñëwee mu kay foofu waxal ma ko laay ba mi nañ ñu bàyyi di wax waxu troisième mandat dem na kii nee na dem na kañ la dem Euh, so les seuls opposants xanaa xanaa Sonko moo ko wax pour mu dem mais kon jàpp nañ ko mujj nañ ko jàpp wala bàyyi nañ ko waruloon dem waaw kii naan ma Macky Sall mi ngi màkk <laughs> daf ñu yab billaahi wallaahi tàllaahi Macky Sall daf ñu yab man Sénégal la moo tax ñu ñàkk fayda il vient de faire un direct devant le commissariat kon dugg na waruloon dem parce que moom xam na la bu demee dañ koy saraxe lon dem parce que mom dafa ne waaw dafa ne ku ku ku ko jema a jël si da lay dóor bal mu waxe day résister neena demul fenn lolo waxon xamna nak xamna nak euh euh ki moko wax il faut partir répondre ban répondre répondre lan yeen deg ngeen aussi ki ñu japp docteur Babacar nya suma assistance koku mo fat Sonko fajj ko 4 jours 5 jours japp nañ ko El Malick ñu convoqué ko mais Macky Sall lan la kii nee na à la super urbaine en ce même temps que El Malick El Malick El Malick tam mi ngi fa. mooy <laughs> yéen Sénégal yéen mooy Sénégal lan moo tax ngeen nekk ay tappe lan moo tax ah lan moo tax ngeen nekk ay ay lapoto ba docteur sax léegi dañ koy jàpp un docteur di def liggéeyam ñu fekk ko ba maatam di def ko avis de recherche. man lii ba mu ko liiree damaa waaru ci yàlla nag man na nag man nag waa léegi sax faj Sonko crime la mais waa ji Sonko bu wootee suma assistance as ambulance suma assistance bu ñëwul mais Sonko mën na leen porter plainte man waxoon naa leen ne Sonko ba mu nekk ci clinique bi clinique bi gars yi waruñoo ñibbi parce que Macky Sall buggul mbooloo Macky Sall il est allergique aux foules il est allergique aux foules foule au pluriel il est allergique à la foule il est allergique au rassemblement Il est allergique ay nit Il tapet la l'hôpital hôpital ba warul est wax Il est wax Il est leen fi Il est ci hôpital bi protéger Sénégal il faut que xam Il est allergique opérer il faut que xam ko pression dinañ woo hôpital bi di lan moo tax ñu Sonko démb infirmier di ko laaj lan la Sonko di def foofu mais ñii ay dëmm lañu ay nooxoor lañu nit ku dem faju ngay woo infirmier di woo gendarme di woo sage-femme di leen wax lan la Sonko di def foofu lan moo ko jot est-ce que wax ngeen poison bi ñu ko jot bi ñu ko sotti lan la bu leen ko defal analyse lan moo ko jot dafay tappale wala tappalewul génn leen ngeen wax ne dafay tappale génn leen ngeen wax ne dafa wér yooyu genre pression yi lañ leen ko dox kan moo leen wax ngeen yóbbu euh, euh, ambulance bi kan moo leen wax ngeen ngeen yónni ambulance bi ñu ne ko ah mais suñu patron moo ñu ko wax docteur Niang moom moom hôpital bi moo ni ñu waa gars yi laaj leen tamit da ngeen di laaj da di laaj da ngeen di gën a partagé man tamit dafa fi nekk di sacrifier di jël ay risque xam nga di wax ci Macky Sall ñu nga xam ne dañ ko fi war a jëlee balaa le 30 mars atimelo li jot jot na ki nee na Babacar Niang dañu ko dinañ mer ndax lu ñu doon def euh, dénoncé ci jamono waaw li mu doon dénoncé ci jamono Covid bi ñu ne dañ koy woo mais mais li ci doy waar gars yi ngeen baal ma dafa am benn annonce bu ñuy bu ñuy def li ci li ci li ci doy waar dañ ko fekk ba oh, côté uh, Matam foofu lañ ko jàppee di Bilal génn na génn nañ ba léegi génnagul ba léegi du génn Bilal Diatta foofu lay des parce que li mu wax keroog dafa garaaw waxu gérée Marème Faye mën a menacé parce que moom dafa ne xaw ma Marème Faye Sall xaw ma ku munti doon képp ku wax dem leen taal sama kër man bal laa lay dóor gars yi ragal parce que dañu xam ne dafa yor fital joolaa dafa yor fital te révolution bi ci moom la ndaroon commencé ndax moom nit dina ñëw foofu mu dóor la bal moom it ñu rey ko Kër Massar takk jëppee loolu tax ma tudd sama sama sama sama kii ma tudd ko ah, Kër Massar Sonko moo waxut leen seen jumtukaay. jumtukaay nag mooy mooy mooy gànnaay te Bilal dafa yor gànnaay parce que moom nee ku fa ñëw dalay lay dóor bal mais nañ ñëwaat ci docteur Niang nañ ñëwaat ci docteur Niang mais docteur Niang nan ngay nekkee docteur ngay faj Sonko ñu ne la lan moo tax ngay faj Sonko mais en plus de ça ñu jàpp la Sénégal nag kañ ngeen di jóg ngeen tupp ñu jëlee fi Macky Sall mi nga xam ne mi ngi ñuy terroriser ñun ñi nek à l'étranger sax ñun ñoo leen ñun dañoo sonn kon yeen yeen kon yeen lan ngeen wara a dund roqay jaay man xamutuma la lay liggéey sama jabar sax wootuma ko billahi wallahi taala xamatuma lu may liggéey sama jabar sax wootuma ko message sax pour ma pour ma am jot message ko sax problème parce que man damay liggéey 7 jours sur 7 kon len rek la am internet def sama live def sama vidéo kon amatuma sax temps sama jabar xanaa mu ne xaalis rek ma yónnee ko xaalis pour pour pour noppalu yónnee ko xaalis rek pare ci moom te moom sax dafa naan ma yëf yi du xaalis du xaalis mais lii jot dafa jot bàyyi leen tappet sénégalais bàyyi leen nekk ay xar bàyyi leen nekk ay ay ay nagu àll yi nga xam ne ñoo mën gaynde fuuf waaye dañuy nekk téeméer benn gaynde ñetti gaynde ñoo wër leen lii jot jot na li ëpp bande de criminels une minorité yore police yore yore gendarmerie di tëj nit ñi kenn amatul jàmm ñi nekk à l'étranger sax sa heure vacance bu jotee sax ñu bëri bëggatuñu dem Sénégal parce que boo demee Sénégal ñu jëf la comme Hannibal Hannibal Jim jàpp la Nafi Ngom Keïta doomam bi doon grève de la faim kenn faalew ko mu arrêté grève de la faim sénégalais yéen a ñàkk jom non bugguma sax xas sénégalais mais vraiment bu leen xaar Sonko mu wax leen génn leen Sonko rek nekk fi yaanaa maar waroon na mën a génn nit ñu def marche Clédor dafa ne woon day ñoom Clédor dañ ne woon dañuy def marche pour génn nit ñi ñu jàpp Cheikh Oumar Diagne kenn tuul ñu jàpp Karim Xrum Xax kenn tuul léegi bu ñu demee ba di jàpp docteur bi nga xam ne moo ñu war a faj yow jaay nga suñu hôpital kenn waxatul ah hôpital la Dantec nga jaay ko waxatuñu ah léegi suñu docteurs yi sax léegi dañ leen bëgg a faagaagal mais lii du dëkk <coughs> Macky Sall moomuñu daf ñoo yàpp balaa may dee ay Pape Alé Niang ñooñu ñooñu sonal nekk fi di def ay laaj di wax troisième mandat mais ñun dañoo dépassé troisième mandat ah ku fi waxati troisième mandat dañ la war a rey sax billaahi man waxuma waa APR de ñun opposition bi ñun ñu nekk ci opposition bi képp ku fi jug di wax naan Macky Sall di jéem a baab Macky Sall di ko tegal ay audio naan woy Macky yaa waxoon li loolu dafa mel ni ñun dañuy saraxu Macky Sall mu dem xaw ma express xaw ma France di wax ne woy am naa ñemewul sax wax waxu troisième bukat la du guerrier day jaay guerrier mais vrai tapet la Macky Sall ku amoon respect ci moom sax dootoo am respect ci moom parce que man dama bëgg nit buy dëggal boppam bu la leeree ne da nga war a def troisième mandat mais génnal nga ne da ngay def troisième mandat nga xool mais tapet dem France di di di di di di sànni ay ballon de sonde di di xool ndax bu waxee nit ñi di mais fii billahi wallahi troisième troisième mandat kenn waratu ko wax mais mercredi mais bien sûr que dinañ ko arrêté. mais léegi bu ñu ko arrêté kenn du def dara ñëpp dañuy toog seen kër ñu jàpp leen par benn benn jàpp leen di leen dugal ci prison prison yi dafa fees fépp leen seen constitution moo leen permettre ne président bu demee ba xamatul fu mu fu mu nekk ah ñi ko wër xamatuñ fu ñu nekk di jàpp di jàpp di tëj di tëj di tëj ah ah kii nee na monsieur Cheikh fait très attention avec Macky Sall yow la may fait attention avec Macky Sall monsieur Cheikh très attention avec Macky kii li muy wax ni waaye yow waaye yow mer na ngaan ma fay attention bugg ma la saaga bugg ma la saaga Macky Sall la tapet la buqat la jëlee leen ko Sénégal seen constitution moo leen may may ne nit bu demee ba commencé di jalgati buur bu demee ba jalgati même Amérique da ngeen ko war a destituer loolu mooy wax ji Guy Marius Sagna li mu wax dëgg la il est temps que Macky Sall démissionne lii Cheikh Omar Diagne wax Macky dootul président xam nga kañ laa génn ci Macky Sall kañ laa génn ci Macky Sall mooy instant yu ñu jéem a rey dàmbooy foofu laa génn ci moom parce que man yaakaaroon naa ne sax nit ki sax xanaa sax booy def lu bon sax di ko nëbb sax mais léegi nëbbu tuuti ba loolu ku mu doyul ne kii prix kii assassin la Marème Faye Sall assassin Macky Sall assassin la famille bi du famille bu bu bu normal ngeen baal ma ngeen baal ma famille bi dafa mel ne famille manquant gars yi ngeen baal ma parce que yow. fukki at ak ñaar ñu jox la suñu rew jox la ay milliards ngeen di sacc lu ne ngeen def ko ñu baal leen waxuñu leen dara ma gaay da ngeen di laaj yeen tamit ñun duñ fi nekk di leen waxal parce que li may wax ni bu ma nekkon senegal jël si nañ ma jappuma li kay soof wax deug la ñun ñoo wara nekk fi di wax parce que comme léegi ku nekk senegal wax ñu japp la tejj la ñun ñi nekk à l'étranger ñun ñoo wara dénoncer ñu wan leen ne ñun sa gëm ñun ñoo jël suñu liberté parce que mané sama jabar mi nga fa suñu wa kër ñi nga fa

mu joxe ordre bi wala mu ñàkk joxe ordre bi Macky Sall ak Marème Faye Sall ñoo bëggoon a rey euh, euh, euh, Dambodj parce que yow yaay président de la république boo demee ba léegi xamutoo sax Antoine Diome lu muy def wala Antoine Antoine Diome moom it bu demee ba xamutul nervi yi li ñuy def di rey nit ñi ñoom ñooy responsable parce que ñi ñi ñi rey ñi doon jéem a rey Dambodj gis nañu vidéo vidéo bi mi ngi ne fang kenn jéemu leen jàpp te ñun bi ñu soxlaa docteur di am nañu renseignement nan lañu def ba xam ne docteur bi mu ngi maatam maatam lañ ko loqatee jàpp ko parce que informe nga xam ne ñii doon jéem a rey dàmbooj kat moo ko yónni ñoom ñoo leen yónni ñoom ñoo leen di protéger Sonko nag moom moo def erreur de communication président Sonko parce que warul wax ne yéen patriotes yi bàyyi leen di génn comme comme jaataa bi lu mu def Bilal jaataa bàyyi leen di génn di wax parce que boo leen dañ leen di jàpp loolu loolu président Sonko waru ko wax parce que waa APR lu leen neex wax. Suzanne Camara nee na nañu taal Sonko ci boppam ñu dem kër Sonko ñu taal ko ah nañu taal kër Sonko kuñ fa fekk ñu taal la est-ce que dañ ko woo ñu jàpp ko kon Bilal bu waxee ne man ku ma ku wax ne damay taal sama kër dinaa la door bal loolu rek war nañ ko ci jàpp yéen ngeen toog mel ne ay xar xar xar yi sax bu doon téeméer xar gaynde songu leen bu téeméer yëpp songu gaynde yi gaynde dañuy daw mais Sénégalais yi Macky Sall da leen di seppi benn par benn leen seppi benn par ah di leen tëj mais docteur nan lañuy tëjee docteur kii reykatu nit la Macky Sall c'est un se ndax ñun Mankaabu dee na sax ñu ne ah xëy na xamuloon woon Mankaabu dee na ñu ne xëy na xamul woon Didier Badji daggate nañ ko xaw ma Fulbert Sambou lañ daggate xaw ma Didier Badji génn su ko ñu ne ah xëy na ah ñu de gisuñu preuve waaye lu ne fàng kenn du ko jeex juróom-ñaari bal nga topp nit mu jógee euh, TFM minuit et demi nga top ko di ko dàqi dàmbo jëree la dàmbo c'est un vrai man de dama gën a am respect pour dàmbo ndax lim ñu nettali comme film dañ ko top ci autoroute bi bu jékki-jékki dégg tiir mais heureusement comme moom dafa mën a dawal mu jékki-jékki rek accéléré mu accéléré gars top topp du di dóor pom pom pom pom am na benn bal boo xam ne fu mu toog ci chaise bi sax nee na na tiir bi gars yi laaj leen gën leen laaj lii bu ñu koy def nit ñëpp war a ñëw nit ñëpp war a ñëw xam nga man li may wax mooy dàmbooj guerrier la ba pare il a la présence d'esprit romb ci benn juma xam nga woon façon juma am présence d'esprit ne xaaral ma dem dugg ci hôtel bu doon keneen day dee parce que day continuer di daw di daw di daw ba gaa yi rey ko mais mu am xel dem dugg ci benn ci benn hôtel wax ak vigile yi vigile yi génn

war a ñibbi minuit et demi même waa APR bi ko doon bu mu doon discuter sax mi ngi naan ko garaawul dinaa la dagg dinaa la dagg boo bëggee mën nañ fi toog ba une heure du lu tax mu koy wax toogal ba une heure du matin est ce que waa APR boobu bëgguloon gën a bëgguloon dàmb gën fa toog parce que lu muy gën a guddi ray bi di gën a ñaaw parce que tali kenn fa nekk su ma doon pam ngaj damay génn ma ne ah li ñu def dàmboj de maa ngi koy ñaaw lu baax tey mam ma génn ci sama responsabilité man dàmboj ba mu koy invité su ma xamoon ne su

bañ fi reyee ñoom Didier Badji dafa mel ne am na ñu ne moom dafa dëggal ne effectivement ñooñu dee nañu kooku moom sanguinaire la Suzanne Camara moom sanguinaire la kooku moom dafa tay la bakkanam yàgg na xam nga affaire bëriwul ay guerrier guerrier yi guerrier yi ñett lañu xaw ma ñeent ñi ñemee wax assumer li ñuy def ñett lañu xaw ma ñeent muy Suzanne Camara ndax moom moo fi njëkkoon wax Sonko dañ ko war a rey Lat Diop moom dafa ne Sonko dañ ko war a jàpp ak Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse te kooku sax booy xool du génnee xam naa li ñu ko wax nekkal ministre moo tax muy génn di attaqué Sonko man de ñett ñooñu laa fa xam ñi si des ñëpp ay tappet lañu Mamour Diallo Mamour parce que moom ba léegi dafa tayle boppam dugg ci affaire Adji Sarr ñooñu xëy na ñooñu nga mën a wax ne ñooñu tayle nañ seen bakkan Mame Mbaye Niang te Mame Mbaye Niang sax du mu ko tuddee génnee Mamour Diallo du ma ko tuddee génnee parce que ñooñu ñooñu dañoo dem ba xamatuñu ñu ñuy def ñu ne ñoom man de bu bu bu Sonko daanu bu Sonko jëlee nguur gi dee nañu Mame Mbaye moom bu géree tapet la mais dafa xam ne dee na ba pare kon naa naa naa ànd ak Macky rek jusqu'au bout ndax bu leen fàtte ne Mame Mbaye Niang doon jéem a transhumé Karim Xrum Xax wax na ko da doon jéem a transhumé kon APR amul ay géree mais lu tax le ministre de l'intérieur yabaate saytaane dem ci benn boutique bu ñu dévaliser waa ji da doon jaay ay téléphone xaw ma lu mu doon jaay ci ci ci ci ci xeex yi gars laaj leen gën leen laaj gën leen partagé ci xeex yi toj boutique parce que au lieu mu tëj tëjul agresseurs yi profité ci am na ñu ci profité je sais pas am na lu ñu sàcc ci yëfam Antoine diom kooku la seeti mais dàmboj bi ñuy dóor ñetti bal juróom-ñaari bal lu tax demoo nga seeti ko c'est-à-dire ils vivent dans un monde parallèle ñoom xamuñu la xew mais Antoine diom yaa yaa yaa réer yow pour yow boo demee ci boutique bu ñu toj dañuy da ngay bëgg woon ne ñoom Sonko daal lii lañ fi nekkee ñenn ñi ñuy boole waa APR yéen a ñàkk jom ñu ne dañuy porter plainte Sonko pour terrorisme <laughs> non billaay Sénégalais yi Sénégalais yi yéen yéen yéen xamu leen seen bopp waa APR nee na dañuy porter so porter plainte Sonko pour terrorisme sur le plan international waxoon nañ leen bu Sonko génnoon Sénégal xam nga tey soo waxoon na leen ko. Sonko bu génnoon Sénégal naan day dem France di faju jox leen ma sama passeport gis nga lu gaaw gaaw ñoom nee nañ porté nañu plainte dañuy porté plainte Sonko ñoom mais yow lan ngay porté plainte yaa yor police yaa yor gendarmerie mais doo def yaa ngi nii convoqué Bilal Diatta jàpp docteur Niang looy porté plainte France wala wala ONU Sonko moo leen jaaxal doo dem nga jàpp Sonko nee nga dafa def terrorisme encore ah, léegi affaire Mame Mbaye Niang doyatu affaire Adji Sarr tu len parce que gis ngeen Mame Mbaye Niang bi li ñu leen won li ñu won ci le le 16 motax ngeen bëgg wax na légui da ngeen di dem da ngeen di dem da ngeen dañuy porte plainte fu ñuy dem ONU li moy aveu d'impuissance li moy Sonko mënul ñun ñu lako dara suñu justice mënul dara Sonko kon légui xaar ñu porte ko plainte ñu jaxase ko àdduna di wax ni terroriste la kan moy terroriste ki door juroom ñaari ba dàmp bas

ba paré ñuy wax muy génn di ñu ñaawal di dugg ci auto naan day dem sandagaw ñi ko fay yu ko du xamul amna ñu neewal vidéo bobu du vidéo bu yàgg bu bess degg na vidéo bu bess la yow dekk bi tak ñaari nit nervi fiir suñu ben ben guerrier bu tuddu goro jox degg na amna nervi am amna ku ñu japp amna ku ñu japp takal ko ne mom mo ray nervi bi di jema saral saaral te ñom ñoom ñoo leen di jox ordre kon nak nervi bi bu yobu ngeen mus gis nga ñu leen di def dañ leen di def loo sale boulot ba pare xëy benn jour jàpp la est-ce que wàññi jàpp sax est-ce que kookoo fii raate mais gars yi man li ma leen di wax mooy Sénégal Ousmane Sonko moo ñu mi ngi wax na ko Sonko nee na ndam li ñëw na ba pare mais nag mais nag man de ku fi wax waxu troisième mandat wala Macky Sall dafa war a eggale ba deux mille vingt quatre du la ko baal àddina ak àllaaxira waxoon naa leen le huit mars.

mais li mu doon wax yëpp gëmu ci dara deux semaine mënoon na bàyyi sax trois mois quatre mois defarwaat ut ay gànnaay sax ba pare génn ne lu fi amoon dootu fi amaat mais mënu ko muñ parce que liñ ko toroxal noonu mënu ko muñ parce que dafa rëy Macky Sall dafa rëy mu dem jam ñaajo deux semaines après mu ne li fi amoon dootu fi amaat vous pensez que là l'état da ngeen di ñëw fii ba pare bu wax def ni kanam gi di jaay guerrier billahi wallahi taalaahi amul Macron amul Biden amul dara jeunesse bi jël leen seen responsabilité gal bàyyi leen ay colonel dara bàyyi leen lii bàyyi leen lii bàyyi leen laa jël leen seen responsabilité te xam ne adduna bii li ci des day gën a metti ñun ñu ngi nii Europe xaalis la ñu am de wala États-Unis mais dañuy liggéey ba sonn pour am xaalis billahi wallahi tàllahi adduna bi gars yi adduna bi j'espère que connexion bi baax na gis nga adduna bi ku jëlul sa responsabilité nga xeex jeunesse bi billahi wallahi taala Sonko mu ngi leen doo wax te bu ñu wax jeunesse bi waxuñu góor yi rek jigéen yi da ngeen war a génn jigéen yi da nga war a génn ngeen nekk ci terrain parce que yéen boo leen nekk ci terrain bi Macky Sall du du ñeme tiré mais chaque jour góor yi rek la ñuy gis ci terrain bi Sonko moo war a jël responsabilité ñu def ay marche concert de casserole bu ñu ko wax ñun dépassé nañu concert de casserole bu ñu fi kenn wax concert de casserole gis nga même grève deux jours soxlawuñ ko parce que Sonko mën na fi woote grève kenn du génn waa affaire commencé waat ñaawal yaa ngi nii di wax nit ñi grèveal nit ñi grève Sénégal du ñu ay tapet lañu xam nga senegal lan la ñu xam rassemblement marche Sonko fo xeex bi yëpp marche la war a doon nañu def ay marche te benn marche rek moo fi des pour jële fi Macky Sall benn marche moo fi des pour jële fi Macky Sall mooy ne gis nga ñi ngay jàpp jàpp jeex na yi jeex na loolu rek moo fi des kul képp ku la fi nekk di wax waxu troisième mandat comme Pape Alé Niang di ñu tegal ay ay ay audio Sonko mu nekk fi di wax euh, euh, audio Macky Sall mu nekk fi di wax way man ñëpp dinañ ma xaar ci lépp ba mu des troisième mandat loolu dépassé nañ ko xeex bi mooy li kii naroon def Cheikh Oumar Diagne moom xam na fan la xeex bi toll euh, Karim Xrum Xax ñoom xam nañ fan la xeex bi toll Clédor parce que ñoom dañoo génn ñu ne dañuy def benn rassemblement place de l' indépendance xam nga loolu pour lan la pour jëlee fi Macky Sall gars yi tiit jàpp Cheikh Omar Diagne gars yi tiit jàpp euh, l'autre Karim Xrum Xax ñemewuñu jàpp Clédor parce que Clédor li mu xam moo bëri ñemewuñu ko jàpp ba pare ñemewuñu jàpp euh, parce que Clédor bañ ko jàpp ci la huit mars ci la déclenché yéen nga rappelé ba ñu jàppee Clédor live trois heures ci biir këram jour boobu dama kaa yërëm Clédor mu wootee mu ne gars yi ñu ngi nii di ma xaar mais comme neuf heures dafa jot ñemewuñu dugg mais man gëm naa ne vraiment suba dinañ ma jàpp jour boobu j'étais tellement triste ndeysaan mu yow rek ñu jàpp ko jàpp euh, jàpp Assane Diouf mais nag ci la le 8 mars bi le trois mars ci la affaire yi déclenché moo tax xëy na parce que ñoom ay féticheurs lañu ñemewuñu jàpp Clédor dàmbuj ñemewuñu ko jàpp parce que doon ko doon waaj a rey mu rëcc ba pare dàmbuj dafa am ay syndicat ñemewuñu dàmbuj mais gars yi man li ma leen di wax mooy président Sonko ñun soxlawuñu ay grève deux jours ñun soxlawuñu ay concert de casserole xam nga lan la ñu soxla le 30 mars nee nañ dañ laa convoqué génn naatal bu leen bu dem de génn naatal nga ne fii laay jaar ba xam ndax ñoom dinañ la jàpp bii paa bu ñu la jàppee xale yi génn leen la woon fa woon ñun waxuñu kenn taalal waxuñu kenn defal dara mais génn leen ngeen dem ngeen ànd ak seen président Sonko ngeen laaj Macky Sall ak gendarme ci yan anam ngeen di jàppee nit parce que colonel

cooki fin Macky sàll bu dee moo ñu mun moo ñu mën mën nañu rey ñun ñëpp benn yoon na taal suñu kër famille na rey suñuy jabar garaawul mais billahi wallahi taalaay ni ko nit daf waxee ñun kenn du ñu def jàmm senegal gars yi bu dee connexion bi baax na baaxul ngeen baal ma gis nga senegal ñun kenn du ñu def jàmm gars yi war a jël seen responsabilité te ñu teg presse boo leen bëggee Macky Sall dund boo leen bëggee waa APR dund da ngeen di génn ngeen xeex. boo leen xeexul billahi wallahi taalahi Sénégal de yàqu te ñëppay dee du waa APR rek ay dee de du waa APR rek ay dee yéen ñi fa am seen kër yi rafet yi parce que dëkk bu demee ba am guerre civile wala mu am coup d'état loolu kenn dugg ko nit nag bu dee dafa dof Macky Sall dafa dof ba xamatul fu mu nekk Marème Faye Sall dafa dof ba katakay ni parce que yow nit ñi dëkk bi di di nit ñaa ngi dee yow nga dugg sa oto di ñaawal nit ñi nga dugg sa oto di di di circuler parce que kayis foofu nee na nekkoo nekkoo Sénégal yaa ngi yaa ngi Suisse xam nga sa à dire Macky Sall dafa dem ba ñàkk fayda Marème Faye Sall dafa dem ba ñàkk fayda parce que ñun ñoom ñun lañ ñuy déglu Kayib Sof la ñuy déglu Kayib Sof dafa ne Macky nekkatul Sénégal mi ngi Suisse mi ngi lii dafa daw léegi pour wan nit ñi ne moom mi ngi Sénégal da koy jaral mu dugg ci oto mais loolu mooy ñàkk fayda bu dee yow Kayib Sof ngay déglu Macky Sall da ngaa ñàkk fayda waaw wax ji daal li ko guddal li ko gàttal xam nga mooy lan c'est pas normal un un docteur bu faj Sonko ñu jàpp ko ne dañ koy tëj ngeen seetaan maire un un un maire maire quartier bu lëmb jaataa ñu ne dañ koy jàpp El Malick ñemewuñ ko jàpp dañuy sóob dañuy sóob El Malick laa la fi wax bañ koy jàpp ñemewuñ jàpp El Malick parce que Sonko nag lu mu ñàkk fayda ñàkk fayda ñàkk fayda du seetaan ñu jàpp porte parole am wax ji Sonko waruloon wax ne gars yi bàyyi leen nekk ci réseaux sociaux yi di wax lii loo xam ne dañ lay jàppee mais dañuy wax ba sonn gars yi xaaral ma déplacé wu parce que dafa am benn gars dafa am ku war a ku toog fii war a war a war a noppalu comprendre xaaral ma toogee ne la parce que waa ji day day noppalu fii te bëgguma ko déranger man li ma leen di expliquer gaay yi li ma leen di wax mooy euh, euh, comment dirais-je li ma leen di expliquer mooy président Sonko xam naa fu ñuy waxee xam naa fi muy waxee ne nit ñi waruñu.

mais Sénégal Sonko wax gis nga gouvernement bu démé ba amatul nguur gi jeex ci lay soxor man Sonko général armée bi soutenir nako. ngeen connexion bi mo xaar ma Je connexion fi changé euh, le colonel là c'est bon dafa ma commentaire ma xol may ndax live bi sa bopp parce que ci booru géej la nek té euh, defal leen ma commentaire c'est bon waaw waaw ki leen notre plateforme c'est que nous sommes dirigés par Marème Faye Sall Marème Faye Sall mooy mii kër bi Marème Faye Sall moo jug bu jugee en ah, c'est bon légui waaw connexion bi day dem di ñëw le colonel là le colonel wax na li wax gendarmerie bu démé ba amatul doole mënutul xeex ak jeunesse bi police bu demee mënatul xeex ak jeunesse bi ci la armée bi di jëw daal di jël nguur kan lam léegi dama leen di laaj yéen Macky sàll toog fi ak benn gendarme ak benn colonel toog fi lan moo leen gën a man de man de fu ma nekk nii billaahi wallaahi tallaahi armée bi jël nguur gi moo ma gënal parce que amul lu yées Macky sàll amul lu yées ma Marème fay Sall bu ñu demee ba bëgg rey ku mel ne Dame nga xam ne ñii duñu ay nit ñii ay franc-maçon lañ dañoo soxor amuñu xol duñu ay julit bo lu joge di wax sëriñ yi fi sëriñ yi fa duñu ay julit julit du ray moromu julitam liñu bëggo def dambo dafa dafa salté salte man ci la yew julit du ray moromu julitam chrétien du ray moromu chrétien jog leen ngeen fepp wax ji dotul aji sar aji sar faté nañ ko mambay ñaan faté nañ ko waaw kay fofu la ñew wax ji xamama wax ji lan la waaw kay stratégie ki nee na armée merci daf leen vote nañ def vote yéen nañ def dix vote dix personnes kan mo andak Macky Sall tok fi wala armée bi tok fi waaw wax len ma tok fofu euh, euh, deggal dof bi di wax tok la fofu dama lay zappé nga jogu fi wax len ma nañ def vote amna ku voter nee armée la bëgg muy 1 ci 10 personnes nañu xol yéen armée bi jël nguur gi wala wala Macky Sall tok fi lan ngeen bëgg nañ def vote nañ def ben sondage 2 ki nee armée jàmbur yi 2 3, 4 5 merci 6 Fatou Ndiaye leen armée 6 nañ dem des na 4 ba ben, amoo sax benn amul kenn ku ànd ak Macky Sall 7 8 9 Soda Gueye 10 merci 100 pour cent Sénégalais yi xam nga loolu lan la leen di war xool leen ba affaire baa ngi ba armée bi jël nguur gi Russie France waaw kay France xoolal lii. cent pour cent amul kenn ku ànd ak Macky Sall xanaa mbooto APR ñoo fi ñëw amul débat parce que est-ce que xam nga lu tax armée kenn bëggu ko armée kenn bëggu ko parce que armée bu jëlee nguur mën na fa toog ba ilaa yow mi mais dañoo maar ci APR dañoo maar ci nooxóoru APR dañoo maar ci Macky Sall léegi xool ba léegi vote baa ngi continuer armée armée armée armée nag boo leen bëggee mu jël nguur gi Sonko mais Sonko Sonko bu demee ba ci biir mu ne na armée bi jël nguur gi kon ngeen xam ne Sonko sës na sénégalais yi ñoo sës Russie ku mu mënti doon ku mu mënti doon jëppeet senegal bu ndaree takk bu waree takk jëppeet ñu defaraat ko ba tey comme li ko kii bi waxee doomu capitaine capitaine doomu Moustapha Sy ni mu ko waxee bu waree ñu sàng Sénégal deret billahi wallahi tallahi man de pare naa pour dee billahi man sama dund bi bëggatuma ci dara Macky Sall xamul ni ñu maaree ci moom xamu ko Fallou Ndiaye Adama Fall sénégalais sénégalais sis Mama Gassama Sakho Macky Sall xamul ni ñu maaree ci moom sëgëm ñun ñi nekk Amérique di liggéey am liggéey bu baax am ay ñuy fay ay millions artimelo ñun nga xam ne ñun billaahi wallaahi taala maa ngi xale bu baax laa yor Sénégal xamul sénégalais nu mu patrioté man jabar ju rafet la yor xale bu ndaw 6 mois ngi ni gisumako ah mais liguey bu bax la am di fay ko ay millions mais limay liguey xawma ci dara fi mu nekk nii dee laa bëgg billahi wallahi ta'ala man je veux mourir sax mu jeex barke rasulallah tellement injustice bi Macky injustice bi ñu tégal mais Sénégal mo bëri ay tapette Sénégal moo cest à ñu war a wax du ñu wax Cheikh Omar Diagne mooy guerrier Karim Xurum Xaq mooy guerrier parce que dëgg bu jotee Cheikh Omar Diagne li mu wax man moom laa wax Macky jeexal na dootul demee Macky dootul président Macky Sall li mu def dàmbooj ak Sonko jàpp Sonko te war ko jàpp sotti ko dara yóbbu ko tribunal par force loolu loolu moo ko disqualifié bu doon Amérique dañuy wax gis nañu Trump problème yi mu am fii xanaa man suivre tour suivre tour ma sax information Amérique mais dafa mel ne temps yi tërëb dañ koy waaj a jàpp gis nga bu doon Amérique dañ lay destituer am Amérique amoon nañ benn président bu tudd Nixon mu dem di espionner démocrate yi di leen déglu xawma ay affaire gars yi jàpp ko mu fen gars yi dañ ko wàccee Macky Sall dafa jeexal man waxatuma yéen balaa ngay wax troisième mandat na deuxième bii daf ko jeexal parce que daf ci def ay affaire criminelle def ci ay affaire assassin ray nak manqabu ken ken waxul ñu ray euh DJ Badji un militaire nan ngay ray un militaire yow ki ki la wara xéxal sa dëkk gendarme bi la wara a lan motax armée bi pare pour jël nguur gi li ñu def manqabu dafa leen metti li ñu def DJ Badji armée bi dafa leen metti billahi wallahi ta'ala Macky Sall jël général Moussa Fall out 500 personnes dugal ay nerf bi da nga yaakaar ne armée bi xamul li xew jël général Tine yóbbu ko Russie da nga yaakaar ne général Tine du woo Sonko wala muy woo ñeneen ñu si suuf ay intellectuel lañ am yu mel ne ay Cheikh Tidiane Mbodj ñoo xam ne Macky Sall jaaxalu leen ñeent fukki at ku ko def ci armee 40 ans nga nekk para makki Sall jaaxalu leen gis nga makki Sall buy yëngatu gars yi di ko fi jëlee moo tax bu buggul rassemblement est-ce que xam nga lan moo tax mu jàpp Sonko keroog parce que xam na ne Sonko bu bu bu jógee kër gi dem tribunal dina def ñaari waxtu ci yoon bi ñëppay génn. bu nit ñi génnee gars yi sànni grenade ñu xeex arme bi dañuy jël nguur gi looloo tax makk Sall looloo tax Macky Sall jàppul Sonko de dafa dafay bañ nit ñi génn nit nag bu demee ba ragal nit da ngeen di génn muy jéem a calmer nit ñi di dugg ci ay oto moom Marème fay Sall dañoo tiit nelawatuñu billahi wallahi tallahi Sonko nag li mu wax li mu ndaroon génn senegal ak passeport bi loolu buñ ko defoon ay bu Sonko jëloon passeport am naan day génn Sénégal comme ni ko Kayus fa waxee. gars yi sànni seen mandat d'arrêt internationaux yi gis nga la preuve Seydou Gueye démb na génn na ñu def seen conférence de presse ñu ne dañuy porter plainte Sonko yéene tapet ku yëngatu ñu jàpp ku yëngatu ñu jàpp maire maire maire Kër Massar sax jàpp nañ ko kuy dem ba jàpp docteur mais ñemewuñu jàpp Sonko léegi ne na ñuy boole Sonko ak tubaat ngeen xam ne Sonko bëri doole mais Sonko discours bi mu def démb dafa leen tiital. parce que Sonko dafa calme Sonko nee xalé yi gën leen génn na gëna jax na gëna a démé ba seigne Modou Kara génn ne Macky Sall bayil affaireu mbay ñaan seigne Modou Kara nga ya xam dafa am ay talibé mais dem na ba xamné Sonko dafa yor doolé buñu démé ba euh Cheikh bassir tal hal pular 100% cent ne da bandum 100% serigne Macky Sall Macky Sall jox ko lu ay milliards lako jox koko génn ah attention kooku génn li ma gisoon Macky Sall li ma gisaloon Macky Sall ne daf fiy jëlee ma daf euh, euh, man gis naa lu mel noonu wax a jotagul nag wax a jotagul Gabriel Kane ci boppam nee na wax a jotagul mais nag wax boole bëggee ñoo ñu wax génn leen génn leen ngeen arrêté arrestation yi génn leen ngeen libéré suñu prisonniers politiques yi ku wax ñu jàpp la c'est c'est pas normal Hannibal warul def Hannibal Djim warul def ben jour ci bir ci bir kasso bi Fadilou Keita dafa war a Ami Dia jigen muy toroxal jigen yéen a ma dégg ñuy wax mu nan day fuy nan day convoquer El Malick ils sont devenus fous ils ont perdu le contrôle Macky Sall his last his mind dafa dof ils ont ils ont perdu le contrôle Sénégal yi jël ni leen ngeen jël seen responsabilité ñom kay sof ñoom Ousmane Tounkara wax ji dootul waxu troisième mandat Pape Alé bu la ñu sonnal ak ay live di ñu tegal Macky Sall li mu waxoon rek li mu waxoon ñun Macky Sall faale ñu ko faale wuñu Macky Sall faale wuñu Marème Faye Sall dañuy abal suñu réew wala ñu rey nañu reyante benn yoon mu jeex matu droit pom cooki fin lay woote le 30 mars na Sonko génn te ñoom bu ñu amee jom bu ñu bu dàq le 30 mars bu ñu ko dàq de na Sonko génn te Sonko wax na ko kenn du ma tànnal fi may jaar sama itinéraire kenn du ma ko tànnal Sonko bu génnee bii paa gars yi yéen ñëpp na ngeen génn boo leen gén génnee ñu ne dañuy jàppaat Sonko ah ngeen teg ñoom ba mu saf sap te boo leen defee ñoom ba gendarme yi commencé daw comme gendarme yi booy di leen daw bii xeex bi trois jours comme ni ko Sonko waxee Macky Sall abal ñu suñu réew gis nga bi ñoo naa bërki démb ñu ngi fa doon xeex ñu rek ñu jël benn booy dóor ko bal ci bopp Korka Ba la tudd nu mu tudd xaw ma lan Korka Ba gars yi wax leen ma xale bi ñu rey du du tukkuleer cent Korka Korka kay tukkuleer la man sama sama dom mamam Korka la tudd Korka Wele Amna na boy booy bu tudd Korka Ba tukkuleer yi sax àndatuñu ak Macky Sall pour vous dire même les tukkuleer ont vomi Macky Sall Macky Sall c'est un cancer Marème Faye Sall c'est un cancer l'APR c'est un cancer Souleymane Jules Diop ba muy nekk euh, Canada di xas Ablaye Wade ñoom dañ ko doon tàccu kon ñun tamit duñ fi nekk di am lu ñuy ragal du am lu ñuy layam layam parce que ñun ñun ñun gëmuñu leen ñun ragaluñu leen ñun ragaluñu leen bu dee da ngeen yaakaar ne boo leen demee ngeen taal kër moo Mollah Morgun kooku moom jaam la même jaam mais kooku sax waru leen woon taal këram loolu moo tax ngeen yaakaar ne boo leen di taal taal kër jàmbur yi nit ñi dañuy ragal a wax mënu leen ñu xoxatal parce que fi ko fi tal kër mu tal sa kër koo fi ray mu ray la ray yi nak yeena ko commencé waaw Sonko li wax leer na comme legui fofu lañu jëm dañuy ut suñu jum kay xam nga la mooy jumtukaay fital jaasi baka yat te Sonko li wax sa clair nervi bo leen japp xam ngeen li ngeen wara jëfëntel ak mom legui lan ngeen bëgg korka ba na la waji lan la tuddu korka ba waaw 100% halpular ñu door ko bal ci bop ba pare néew bi ñu téye ko papa mi ngi jooy génn di wax nañ ma jox sama néew mais duñ ko def dañuy def seen sale boulot ba pare di ko jéem a nëbb am na benn booy bu ñu fa reyoon Abdoulaye Diatta la xaw ma ba pare di wax non non kenn kenn jamu ko fital ah dafa gaañu dañ ko jam patati pa paaka lañ ko jam et cetera. Mamadou Korka Ba waaw 100 pour cent Haalpulaar yeeg Macky Sall kenn àndul ak moom xam nga lu tax Sénégal sénégalais ngeen war a jël seen responsabilité. billaahi walaahi taalaahi aduna bi luñu poursuivi diffusion de fausses nouvelles mais président Sonko ne jël responsabilité li jot dafa jot man dama len di jox stratégie xama stratégie bi moy lan arrestation yi dafa wara jeex arrestation yi xeyna nak Sonko da doon piéger Macky Sall xëy Sonko li la bëggoon Sonko li mu wax gaay yi attention bu leen génn di wax parce que dafa bëgg Macky Sall ne ah kon Sonko nee na sax dañoo a jàpp kon di Sonko day Macky pour Macky dem ba parce que mi ngi nii tey ñu yow mu jàpp mu ndara jàpp naa jàpp nañ ko maire maire Kër docteur ñu ko El Malick bu ñu ko ndara jàpp foofu nag moo terminus terminus bi xam nga mooy lan dañuy génn manifester pour

bo defé ben fan ci prison ben fan rebeus bo génné dinañ la fay 5 millions minimum minimum am nañ xaliss bobu de da nga yaakaar ne Sénégal amu xaliss bi Farba Ngom rek ay immeuble buñ bu ñu ko jaayee immeuble Farba Ngom buñ ko jaayé ñi duggoon prison yépp ku ci nek buñ ko diviser mën nañ la sax jox 10 millions. parce que ko xamné kërëm fekk nañ fa 800 millions domam sàcc 250 millions daw. deux jours ñoom xamuñu sax ne doom sàcc na deux cent cinquante millions jënd oto daw Gambie jël xaritam may ko quinze millions Farba Ngom maggu far Farba dafa yor xaalis ba xamul fu mu koy denc mu dénk ko magam mu dénk ko magam deux cent cinquante millions doom ji moo génn di wax xaritu doom ji moo génn di wax mu ne sama sama papa chaque samedi dañuy indi ay saaku xaalis vingt cinq kilos ceeb ci la ñu dugal xaalis bi booy bi daal

xale bi nekkate boobu moom dem na Almadi loué fa benn apartement di blow jënd oto bu bu bu bu bu oto bi dégg naa sax policier boobu moo ko mujj jël El Capo la xaw dégg naa El Capo moo mujj sangu oto bi booy yi beneen booy bi ñun ñu dem këram ñu ne ko ana xaalis bi mu ne moom 5 millions rek a fi nekk gars yi récupéré millions xam nga ne bu ñu la laajee xaalis nga joxe 5 millions c'est parce que làkk nga 10 millions yéen a may dégg yematuñu fa Farba Ngom porté plainte chauffeur am ne chauffeur am dafa sàcc huit cent millions mais yéen Sénégal <laughs> ne mais Sénégal a neex Farba Ngom nee na dañu sàcc trois cent millions xam huit cent millions këru Farba Ngom rek laa wax de parce que dégg naa Sénégal yëpp dafa tabax buñ ko récupéré bu révolution bi jeexee ba ñu récupéré kër Farba Ngom jaay ko ah képp ku dugg prison benn fan dañ lay jox cinq millions eh waxuma nag ba euh, agresseurs yi de képp ku génn ci manifestation yi ñu jàpp la dugal la kaso minimum am nga cinq millions loolu bu ko ko waxee xale yépp dañuy dañuy génn ci mbedd bi billaahi wa gis nga xeex booy xeex dangay ngay xooy xeex dafa am lu ko cest à ñun dañ leen di wan ne boo leen bëggee tekki xeex leen pour Sénégal ku bëgg a tekki au lieu ngay jël gaal di fay sa cinq cent mille di dem di dee ci géej gi nii ñëwal ñun waxu te kenn du la rey lacrymogène rek lañ lay sànni après ñu dugal ak euh, rëbës ñaari fan ñetti fan boo génnee am sa juróomi million ñi seen loxo dagg dañ leen di dinañ leen compenser loolu moom jël nañ décision bi yàgg na Macky sàll moo ko bañ a appliqué leen xeex Sonko ba mu nee Macky sàll dix commandements yi bi ci njëkk wala bi ci gën a am solo quatorze mois dañu leen di jox ay millions ku nekk vingt million lan moo tax Macky Sall bañ lan moo tax Macky Sall bañ parce que Macky Sall dafa xam ne bu bu bu fayee ñooñu yeneen xale yi dañ naan ah, kon man bi amna, même ma sama millions au moins C'est tax Macky ba train fayul kenn mais ñun ñoo di fay mën nañ Nous millions Sonko ngi dañ ko rek trois millions ñun ñun mën nañ mais la affaire du Sénégal euh, ki bi mu am Macky Sall def euh, jekku Sénégal def def liggéey non lool bi mu ngi ñun li ñu am ci pétrole li ñu am mën na en prison Nous jox 5 millions Pape Alé a def un mois de prison Il ko jox 20 millions ou 15 millions. Karim a la def dañ koy calculer Si on Amérique dañ koy calculer ñu xool ñaata fan nga def nit ku nekk billahi wallahi wax ni bu appliqué kenn le ragal prison. kenn dootu ragal prison parce que da nga au moins si dina 5 millions ou 10 millions en plus de ça dañ de Sall mais loolu ben point la bo xamné ne temps yëpp maa koy wax mais ñun waxu ñu Sénégal dafa wara a pour am intérêt dédé mais loolu pour pour pour ñu démystifier wa kay dédommager mom day am pour ñu démystifier prison mais même bu xaliss bi sax yow sa réew dafa la ko wara jaral sa réew dafa la ko wara jaral man bo leen gisee ma dem ba radicaliser wu han ah, man buma né nee Sénégal dañ may japp man mako wax nañ ma wax man man nañ ma duggal sen liste billahi nañ ma dugal seen liste comme man né man né bu la nexé ñu né terroriste la bu la nexé ñu né damay def appel à l'insurrection mais man li may def moy résistance man dama jang constitution xamna li sama constitution wax bour président bu démé ba deful lu mu ba commencé ray koku dañ ko fay war jëlé warul égali mandat ngeen may wax ay waxu 3e mandat xex bi fofu la toll na Sonko jël responsabilité le 30 mars Macky Sall bul daw bul daw le 30 mars te waa kay bu ñàkk fayda ba Macky Sall condamné Sonko bu ñàkk fayda ba Macky sàll condamné Sonko Mame Mbaye Niang condamné Sonko affaire aji Sarr moom ñëpp xam nañ ne Macky bàyyi na ko mais bu kenn nangu maître Clédor li amul dem France di làqatu amul de ñibbisil ay xamama nga man lan bañ. ñu bàyyi ba le 30 mars ñoom Sonko dem fa ak seen avocat di wax wéy non il faut que ñu renvoyé waat ko parce que maître Clédor li nekk fii parce que Sonko ba léegi dafa feebar loolu ay lay la loolu ku amul doole moo koy def ñun ñu ñoo war a attaqué instant yi ñu ñoo war a diriger Macky Sall waratul diriger xam nga man Sénégal lan moo tax ñu soof ngeen soof ma xam nga la moo tax ngeen soof ma ba léegi Macky Sall pouvoir bi ngeen ko jox amu ko Adji Sarr Sonko dafa dëggal boppam Macky dellu ginnaaw terminus Macky dellu ginnaaw bii tamit bu Sonko déggaloo boppam billahi wallahi taalaahi affaire Mame Mbaye Niang kenn waru waru leen seetaan ñu koy atte may wax jàpp Sonko bañ jàpp Sonko Sénégalais six Macky Sall le 30 mu ne day jàpp Sonko du ko jàpp du ko jàpp léegi su lan laay proposé Sonko Macky Sall bu la jàppee bu jàppul bul dem tribunal defal caravane Dakar caravane ngay def Dakar demuma tribunal wala bu ñuy dem tribunal dañuy dem tribunal pour wax leen ne affaire bi na arrêté tey kenn du fi atte Mame Mbaye affaire Mame Mbaye Niang kenn du ko fi atte mais ko di ñàkk fayda di dem tribunal gars yi ngeen baal ma sama président waruma wax ak moom noonu mais di dem tribunal boo xam ne boo fa demee dañ lay rendi loo fay def boo demee juge bi ne woy tey moom audience spéciale la xaw ma kenn du dugg kenn du génn ah audience spéciale après du ñu décider boobu de. danaan léegi lépp mu ngi ci loxo juge bi après juge bi dina décider bàyyi deux mois trois mois quatre mois ba ñëpp dëkk bi calme rek ñu génne Sonko bokkul loolu waruñu ko nangu Mame Mbaye bi dafa war a jeex waruñu fa dem lan lañu fay def mais yéen yéen yéen a yor doole ngeen bàyyi Macky Sall di leen def di leen caxat caxatee mais Macky Sall mooy kan ba ba ba ñuy nangu Amady Diouf diffamation rek Amady Diouf yokk ci ay ay ay usage ak usage de foo ngeen toog mais Sonko lan lay def ci tribunal bu ñàkk fayda boobu lan la fay def nit boo amee doole dangay xam ne yaa am doole bu mu dem ci bu mu dem ci procès Mame Niang génnal xam nga génn bi pour lan la mbooloo ko Macky Sall mbooloo lay bañ Macky Sall mbooloo lay bañ Sonko génnal boo génnee xale yi dinañ la gunge buñ la jàppee nga joxe moo tord jëppeet na xale yëpp génn Nous ñu nous, ñu nous ñuy nous Sonko nous nangu bouclier le fait que suma assistance ba mu ci hôpital ba mais loolu dama ci contane ñaaru fan ñetti fan heureusement fan be ci Sonko wax nit ñi mais ba ma gisee nit ñi ñëw guddii am ku juggé ba ñaaxu rap, néna lan nga fi def dama parce que sama sama président dañ ko dama ñëw pour soutenir ko dama ñëw pour def bouclier loolu lañ soxla su ma doon Sonko suma ma assistant loolu tax ñu jàpp Babacar Dia Macky Sall il est allergique aux foules il est allergique au rassemblement il ne peut pas voir euh, euh, euh, la jeunesse sénégalaise n'est-ce pas unie parce que xam na ne mbooloo mooy doole kenn nag xale yi ragaluñu de mais kenn bugul ku la saraxee kenn bëggul ku la saraxe mais xale yi buy gisee ñëpp génn ñëppay génn bu kër génnul ku nekk toog sa kër c'est normal parce que doo saraxe sa bopp tamit doo saraxe sa bopp moo tax nag bu ñëpp génnandoo li li Clédor bëggoon def gars yi il faut que jeexal laay parce que damay liggéey man de tant que koy mën chaque jour dinaa def live chaque jour dinaa def live te live bi may def mooy billaahi wallaahi tàllaahi bu ñu dëggalee suñu bopp makki Sall mois de mars bii dina dellu ginnaaw génn mu dellu ginnaaw mu delloo ñu suñu réew te ñun Macky Sall wóoluwuñ ko parce que tapet la moom boo ko boo ko njëkkoo day day dem ci sëriñ yi wax waa léegi jeex na dootuma def troisième mandat loolu lay wax de dootuma def troisième mandat waa dem leen seen kër ngeen toog jeex na dinañ organiser élection yi xale yi ñëw leen ngeen bindu noonu la ñuy nax di ñu nax entre temps ñu def li ñu def ci suuf rey Cheikh Bara Ndiaye rey euh, euh, euh, Cheikh Bara dafa rëcc gis nga bu reyoon bu reyoon saway dàmbooj ci autoroute ba après oto bi dañ ko naroon taal ñii ay dëmm lañu ay nooxoor lañu mais ñii duñu ay nit ay franc-maçon lañu man xaw ma dañoo lekk xaalisu franc-maçon xaw ma kan moo leen di defloo ñaaw téef fii tubaab yi rek la mën a doon parce que man mënu ma comprendre nit ku yor ay milliards soxor ba soxore sa bopp man maa ngi nii di liggéey sept jours sur sept Macky Sall du liggéey té pourtant mi ngi ak ay milliards Amadou Sall du liggéey mais ñom lan mo tax ñu dem ba iñané sen bop xaliss bi ñu yor bu la neexon ñu génn Sénégal léegi dem Dubai dëkk fa di tukki du ñu liggéey ak liggéey lu mu metté man ñu may fay ay millions ay millions lañ may fay billahi wallahi taala mais awma liberté parce que pour mu ñu fay ma il faut que ñu ne ma huit heures nga wara tek 9h fi nga wara nek mais ñom Macky Sall ba ba ñuy dee dootuñu liggéey Macky Sall ay sëtaati sëtaati sëtaatam ba ba ñuy dee dootuñu liggéey bu leen mais boo nekkee baadoo la xaalis day dem ba dootula la saf dara billaahi gis nga xaalis boo ko xamul day dem ba dootu la saf dara léegi xam nga yow la ngay jëlee plaisir mooy di rey ay nit naan seen deret di def fu góor jigéen di def yëfu farmason parce que da ngay dem ba réer loolu rek moo mën a dal ñoom Macky Sall ay dool lañu mais man de milliard bu mu ko amoon maa ngi ngi euh, euh, di di jël vacances xam nga di di def lu baax di tabax ay ay hôpital wala et cetera. mais fi ngay xamé ni mariam faisal mi keur international bu jigéen di jaay la première dame fi di jaay jeeg mi keur international mo gëna bon son moo mo gëna bon euh, ngeen baal ma Macky Sall ndax derrière chaque. grand homme se cache une grande dame. Derrière chaque dictateur ou bien chaque despote se cache une mé mégère, une sorcière. Marème Faisal, c'est une sorcière parce que mon boudon doon yaay du seetaan ñu jàpp Amiba añ Amidia di ko tëcc amul xol xol bu ñuul kooku la yor waa APR nag ñoom ay jaam lañu amul parce que ñoom ñoo mais kenn amul fit nga genn nga wax sa sen leer nga wax ko deug man loolu la len mere motax ñom ñoom dinañu dé ci 2023 bi bu ñu sàgganee Abdou Mbow do tak sa fit ya xam bay commencé nga wax deug ne nga Guy Marius Sagna sa xarit la do tak sa fit nga yo ya fi nek di wax ay ay dynasty faisal ñom ñoo len jay japp nit diko jey ba mu dem ba reer khadim samba bour bour dafa wara bour dafa wara ray ay ay pam bay bex di len xalamal ah jam, Amadou Ba yow lo nam lo nam wax man president Macky Sall ah, ba 2035 ñak fayda tay la sen bakken Amadou Ba bañ ko nommé euh, premier ministre famiyam dañ doon jooy seetaan len reportage bi Amadou Ba bako Macky Sall nommé premier ministre yaayam. ay ma ay ay sërëm ay mbokkam dañ doon jooy bëgguñu parce que nee xam nañ lu ci nekk danger bu ci nekk parce que ñoom ñoom xam nañ ne amaduba am na lu muy am ba pare mi ngi këru 3 milliards xaw ma fële euh, euh, euh, fële almadi xanaa gis nañ ci Cheikh Karim Mbacké ba mu demee seeti Amadou Ba Amadou Ba wàcc ci ascenseur bi ma ne mi genre kër yi am na Sénégal mais ak a jom yow doo doo dëggal sa bopp jël APR récupère ko ci Macky Sall maintenant non ñun je suis là avec le président Macky Sall euh, jusqu'à 2035 di Dundé yakar yakar ne Macky Sall day xëy jour rek ne Amadou Ba bàyyi Macky bàyyiwul de ñu naan ay Sall Ndiaye Macky joxewul pouvoir bi nguur la bëgg Natou moko dal li daloon Firawna moo ko dal da ngay dem ba réer Macky Sall du nit billahi wallahi taala du nit yow na nga am sa gir Mermoz am sa jeeg bu baax am ay xalé mineur mais nga dara tayle sen baket dañ leen dara yeen dañ leen dara ratalé billahi wallahi tallaay parce que yeen yeen li ni nit ñi di dund xamu leen ko sa souffrance bi sénégal yi dund mais ñun ñi di ñun ay millions lañu denc man buma leen waxal liñ may fay <laughs> di nga ne monsieur Cheikh yow te nga mënon nga noppalu ko rek nga baña wax nga ñew Sénégal nekk sa vacances yaa ngi sa jabar bu ndaw bu foofu man bu mu leen waxoon lu mu leen fayeeku gars yi Macky Sall mi ngi leen di rey mi ngi naan seen deret man fii may liggéeyee dañuy soxla nit ba nga xam ne ci ci Covid bi sama contrat dafa jeex ñu ne ma yokkal un mois ñu fay la 3 millions ñu ñu ñu fay la 3 millions cash te bokkul ak sa salaire de te ñu bëri lañ ko def fii ay américains yu bëri américains yu bëri ne noonu baax na. man du fi nekk di liggéey un mois trois millions baax na billaahi américain yu bëri compagnie bi ne kaay leen ngeen liggéeyaat un mille trois un mois ñu fay la trois millions cinq mille dollars ñu bañ dem seen vacances ñëwaat kon ñun ñaata la ñuy fay yéen cinq kenn xam buy liggéey euh, université day day bale euh, xam nga ñaata lañ koy fay cinquante mille te paas bi bokk ci de day paas cinq heures du matin lay yow dugg car rapide dem ñëw boo paas bi boo ko calculé xam naa dina ci dindi ay trois mille cinq cent quatre mille cinq cent kon ñaataa des cinquante mille yi te weer day jot muy dàqante gars pour ñu fay ko cinquante mille te cinquante mille yooyu am na Sénégal yu bëri yu ko bëgg liggéey boobu mënuñu ko am mais li am Sénégal c'est extraordinaire kilo dibi 7000 francs lek bi baxul tali salté salte ah accident yi bëri mak sal di len sacrifier di len saga nday di jënd ay avion du tàggoo di jaay ay hôpital ah sëriñ gëm li am Sénégal Sénégal du dëkk man sëriñ sam sen affaire dama ko dépasser Sonko fofu lañ koy gërëmee man fofu lay gërëm affaire bi du Sonko xam nga boobu ba léegi maa ngi wax tudd ma Sonko ñoom dañu yaakaar ne affaire bi Sonko la ñun xeexuñu pour Sonko ñun Sénégal la ñu bëgg mu libéré ñun du question libéré Sénégal mais waa APR noo xóor APR la ñu bëgg mu génn parce que ñun kenn musul gis xeetu nit APR kenn musu ko gis jaam gis nga nit da ngay dëgg sa bopp Abdou Mbow tey foo waroon génn mu ne président de la République Macky Sall ñun doo dee doo doo ñu rey Macky Sall li amoon le 8 mars ba ñu naroon ñu rey kër maître El Diouf ñu taal ko ah yow sa kër sax kër Marème Faye Sall dégg naa seen yu taal nañ ko ñun ñëpp ñu daw Mamour Diallo ci boppam toog ak Adji Sarr ne ko dañu sant yàlla ndax mënoon nañu jiyee Adji Sarr ñoom jël seen responsable di ne yow bu dëkk bi tàkkee avion bi ngay jël daw xëy dina leen jàpp après de mais di nga duddaat au moins un an deux ans te kenn du la rey ndax yow dañ lay tëj rek mais ñun dañ ñu ndara rajaxe ndara am boo waxee ñu ne kii terroriste la wala dañu ñun dañ leen di artu ay weer moo leen desee dund dëggal leen seen bopp ngeen wax ak Macky Sall lan la daf leen di tëj mais ba tey ñu tëj la moo gën ñu rey la parce que jeunesse bi daf leen di rey dañ leen di rey xatet parce que jeunesse bi dafa maar boo gisee keroog ñu ñëw hôpital ba dañoo yàkkanti xeex boo gisee ñuy ñëw hôpital te ñooy booy seen yaram moo tàng pour xeex parce que boo toogee yow amuloo cent franc te xam nga la moo gën bon ci xalé bu goor surtout xalé yu goor yi nga wara liggéey liggéey xam nga la moo ci gëna bon yo gel sax doo ko am te gaay lepp jigen la nañ waxanti dekk ben nga am 20 ans 25 ans 30 ans wara am xalé nga gis xalé jigen jigéen yi di la rombu duñ la faalé tax jigen sax mëna dem mbaraat mais goor mënul mbaraat te senegal affaire goor jigen amu fa kon booy dañuy toog sonn amuñu gel lekkuñu boo leen gisee ñu ngi yooy yëre yu baax mu mënuñu sol loolu dafa metti ci xol ba pare nga toog sa yaay di jàmbat ñuy génnee sa yaay location ñu leen di génnee ñuy dem fii di amuñu fu ñu dëkk Macky Sall li booy yi dund xamu ko xamuñu ko léegi nag booy dañuy bëgg révolution am dëkk bi tàkk jëppeet buñ koy defaraat ñu defaraat gars yi foofu laay jeexale chaque jour su ma ko mënee dinaa def live ñun nag wax la ñu mën bu dee dañuy wax ba sonn yéen jëlu leen seen responsabilité après nag ñu xam ne nag kon xëy na Sénégal mooy dëkk poto dëkku làppato nag bu dee nag da ngeen bëgg nag ngeen nekk ak Macky sàll rek ak waa APR ñu leen di rey mais loolu bu boobaa ñun mënuñu si dara bu dee sëriñ ñi bu ñu leen ne bàyyi leen ngeen bàyyi man Sonko laay interpellé j'interpelle le président Sonko xeex da ngay xeex bu ñu waree dee billaahi wallaahi taalaahi ñu ñëpp ñu dee barki rasulilaay Macky Sall bu ñu waree rey ñun ñëpp mais ñu wan ko ne ñun ah duñu ay jaam comme lu nit daf wax te loolu xam fan lay commencé nañu génn ñu def marche mu bàyyi ñu imposer ko mu bàyyi prisonniers yëpp te bu ñu bàyyee dootuñu nangu mu jàpp kenn ci ay manifestation xam nga kañ lañu ñu war a jàpp sàcc agresseurs yu nekk ci APR di agressé nit ñoo ñu lañ war a jàpp mais képp kuy génn di def marche ne dangay ngay ànd ak Sonko tribunal kooku kenn warul jàpp Sonko na def loolu kombaam te mu bàyyi di wax bàyyi leen nekk ci réseaux sociaux yi di wax lii bañ leen di jàpp Macky warul jàpp kenn deuxièmement foofu lay jeexale deuxièmement fi may jeexale mooy euh, euh, après dinaa lire euh, quelques commentaires xam nga fa laay jeexale fi may jeexale mooy Mame Mbaye terminus terminus Sonko bu bu bu seetaanee ba ñu tëj mu ne après ci lay doog a xeex pour Macky Sall dellu ginnaaw loolu du stratégie loolu du stratégie nga bàyyi ba ñu tëj la ne bokkoo nga ne nag xale yi nañu génn bu xale yi génnul nag doo perte loolu risque la bu mu nangu mukk mukk juge bi juge boobu dañ ko war a teg pression juge boobu ci pression la nekk li muy liggéey bëggu ci dara saa yu affaire bi ñëwee mu dàq ko mais gars yi dañu koy topp di ko saaga di ko menacé pays pas le 30 boo ko tëjul dinañ nangamtaan sa ndey lañ koy wax gis nga sa compte bancaire ñoo ko yor sa xam nañ sa jabar fu mu ne boo ko tëjul bii pas le 30 bi boo ko tëjul dinañu nangamtaan sa ndey lañ koy wax dinañu def noonu sa ndey teg ko pression ñun tamit dañoo war a teg pression juge bi ne ko yow gis nga boo fi tëjee Sonko dinañ la la moo tax ji Samba Sall dellu dellu ñii nan dañ ko rey ak reyuñu ko yéen xamu leen mafia bi nekk fële bu ñu nangu affaire Mame Mbaye Niang waru bi warul prononcé jam dara man de bu bu juge bi prononcé loolu defat la juge bi bu attee Sonko defat la ci ñu génn bi nag na dem mais xam nga pour la la li ñu defoon le 3 mars bu leen fàttali ne Sonko dañ ko woowoon bañ ko woowee nan la mujjee dem na de waaye après dañ ko bàyyi loolu nag la ñu war a def ci bii pas dañuy dem tribunal pour wax juge bi tegal lépp ci suuf Cheikh Madou Kara commencé na wax Macky Sall waxal ak say magistrat Cheikh Madou Kara te pourtant dafa na Macky Sall la àndal mais génn na mu ne Macky waxal ak say say say magistrat affaire Sonko bi nga teg ko ci suuf loolu mooy la ñu war a exiger voilà gars yi loolu mooy sama live tey. di len wax ne sama xol dafa fess gis nga li terrain de basket la ni sa yuma yewoo damay dem basket mais temps yi talutuma basket taluma woo sama jabar taluma def dara ndax li am Sénégal dafa ëpp bàyyi leen ragal bàyyi leen layam layami te mister layam layami ku mu yeewul liñ ko bëggona ray, ray rey bu ñaaw biñ ko bëggona ray ba paré nëbbu ko né dafa accidenté ku mu ku mu doyul buñu ñu paroon si layam ci mister layam layam ci Cheikh Cheikh Bara ndjay lañ ñu doon dem ray ko tamit ne accident la buñu paré Cheikh Bara ndjay dem ci Guy Bara Sagna noonu lañ doon def rek duñu ñu faagaagal ben par ben kon nak gaay jël leen sen responsabilité comme niko al maktum waxee jël leen sen responsabilité ñu génn ñu wax Macky Sall do eggali 2024 lolu moy xex bi gis nga xex da am objectif bu reuy ne li la bo amul lolu nga am lenen tay buñu ñu Macky Sall do eggali 2024 ba mu leer ci bopam bu boba dina delu ginaaw xale yëpp bindu bàyyi Sonko bok mais tok di wax nan doo ko tëj doo ko tëj déedéet objectif bi dotul lolu objectif bi moy Macky dafa le 30 mars bi mois de mars comme moom mois de mars moy moy mois am moom dafa cher la dañ koy wone mois de mars bi do egg da ngay da ngay wacc ñun ñun duñu dem ak yow 2024 nga ñuy ray Macky Sall kan moo jox 10 10 mois 9 mois muy gëna défar defarwaat mais yeen da ngeen dof wala lan kan moo jox Macky Sall 9 mois bu len ko nangu na fi jógee léegi léegi léegi léegi loolu moy wax ci généraux yi wax colonel yi wax nañu wa armée bi ñi ngi wax jël len sen responsabilité voilà gars xaar ma li fi quelques commentaires après mu ñu dem ki nee c'est un bateau de croisière ou pas waaw laay liggéey dëgg la xaalis bu weex tàll laay fayoo billahi wallahi taalahi lekk ñoo lekk dund leen de façon lekk bu ne la ngay lekk fii xaalis bu weex tàll dañ lay fay ba yow des fois da nga naan waaye ñii juumuñu sa salaire liggéey bu yomb boo xam ne <laughs> man sama contrat day jeex may yokk rek sama contrat jeex na bu yàgg mais damay yokk un mois yokkaat deux mois parce que dama naan xaalis bii du ma ko fi bàyyi parce que su ma bàyyi liggéey bi xaw ma fan lan laay am damay dajale li ma dajale jox sama jabar après nag ñu jëm ci xeexu Sénégal waaw damay damay yokk di yokk am xaalis xaalis boobu mais def may permettre sax day bokk ci xeex bi comme Macky Sall moom nee na ñun dañuy financer terrorisme ak yooyu yéen dund leen liggéey yi sax am yëpp liggéey bi moo ci gën a baax. billaay barke rasulaay liggéey ma am yeb bi mo ci gëna a bi mo ci gëna a mais man taluma liggéey instant yi parce que bo liggéeyee té sa dëkk mënatoo fa déllu parce que guerre mo fa am parce que amul justice mais lan lay jëri mais buma ma tok toog fi ma toog man citoyen américain la sama passeport Sénégal na yag na dundulen dibi 7000 bu doon dafa bax sax da ngay jënd dibi 7000 dibi bi nëpp dund leen de Macky Sall boo leen xamul lu muy dund Amadou Sall boo leen xamul lu muy dund 4x4 yi bees yi ñuy dawal jesneer yi li tax xaadi xaadim Sall ñoom xaadim Sall mel na ay dëmb lu tax ñoom xaadim Samba mel na ay dëmb di wax ne président dafa war a rey parce que dañoo gis ci 4 x yi gis ci mallette yi gars yi bu ñu lay may bi yu bees taqal jox leen xam bu leen fàttali ne Mamour Yàlla sama xarit la xaalis bu ñu yor bu la ko waxee yow da nga naan da ngay waar boo duggee seen kër yi da ngay waar man kër Mamour Diallo dugg naa fa xam RG mi ngi ko doon wax RG bu kay sof dem leen kër kër googu moo gën a ñaaw kër Farba Ngom yi moo gën a ñaaw yeneen kër yi da ngay waaru ci yàlla ay cent la xaw ma <laughs> xaw ma ay cent cent néeg mooy nekk ci biir seen kër yi trente néeg douche yi ndox yi tàng chambre yi comme chambre yéen gars yi li ñuy dund xamu leen ko ay salaire seize millions ku ko am par mois di tibb ci kees gi Mame Mbaye Niang trente milliards Macky Sall ñaata milliards la denc mais yéen da ngeen di nelaw ñun ñii du ñun ñi koy dund xam nañ ñu bi boo duggee ci yenn suite yi da ngay waaru ci yàlla ñoo Macky Sall yi dix ans ngay dund dund koo kooku mënootoo nekk nit Macky Sall dootul nit dañoo sàcc sàcc sàcc sàcc ba xam ne mënuñu rëcc ñu ne nag xaaral ñu taal réew mi te ñoom xamuñu ne tey bu ñu bu ñu góorgóorloon ñun mën nañ leen sax baal li ñu sàcc.

ñun heure supplémentaire yi dañuy forcer pour ñu liggéey dañuy forcer ñun ñooy bañ man sama heure sax dama ko wañ man je préfère ma liggéey ay mois yu bari ñun teg dañoo bëgg Sénégal ngeen dem ba mel noonu waaw ah, kii nee na arrête baaluñu kenn non fi mu nekk baal amatul parce que ñom ñom ñu commencé di rey ay dambo di commencé di ñu tirer di japp ay docteur fi kay fi mu nekk gatsa gatsa la rek voilà gars yi bàyyi leen ma ma ma couper live bi koj len ma surtout nak par samedi samedi lay gëna mëna wax parce que bato bi sax aw droit nek fi na damay live damay bañ kuma yobbu ma yóbbu kër yaa ma di tax la xawma ma nu ñu koy waxee laay bañ mais je m'en fiche man da buñ ma dàqoon sax man dem Sénégal bok ci ñu ñu tecc rebeus parce que xex bi fofu la il faut il faut ñu nangu ñeme prison il faut ñu ñeme ko ñu baña ragal prison il faut prison man américain la dé man buñ ma jappone au moins américain diñ ko yegg. waaw te ñu ngi ni jàpp docteur Niang mais c'est bien loolu yëpp day wane ni ñoo dem ba xamatuñ si lu ñuy def dañoo réer waa gars yi ma coupé xaaral ma lire rek naa lire trois commentaires ku am question posé ma question naa lire deux naa jël deux questions parce que rarement laa koy def après euh, ma dem parce que tamit des fois di yéen di ngeen am ay ay suggestion mais ma kontaan naa ci seen vote bi ngeen def wane ne yéen armée bi moo leen gënal Macky Sall kon Sénégal yi maar na s'il y leen ma vendredi samedi si si possible ma def live 221 gis nga mooy code Sénégal naa ko jeexale foofu di leen gërëm di leen sant euh, euh, loo xam ci drapeau Russie bi non kay Russie gars yi ñu ngi wax Russie Russie Russie ñun faalewuñu Russie mën nañu demal suñu bopp kii nee na Colobane mi ngi tàkk <laughs> Mister Shake le match man du ma seetaan match duma ma seetaan match Sénégal gagné na Coupe d'Afrique seetaanu ma ko ci benn résumé rek laay seetaan même CHAN bi ñoo ko gagné sétanuma sax résumé dégg na suñu junior ñoo gagné taluñu football ñun taluñu football man football rek la bëgg dama nan football ki nee jam na jamono buuy <laughs> na jam ne tak gaay bu taal xam nañ suñu taal ñun duñu taal ñun taaluñu ñun dañuy riposter waaw buñu ñu riposter armée bi génn jël nguur gi mu jeex. wala gaay ni nga def noonu ba suba beneen yoon merci ha ah, ma ngi leen gërëm di leen sant merci beaucoup Roqe ndjay ay tout le monde.